because more than 60 uh, migrants have been rescued by a volunteer crew under the CI, an organization concerned with the safety of people at sea. Libyan had uh, shot gunfire, creating fear in the, in the work of the humanitarian activists, but that didn't stop the operation on the Alan uh, Kurdi. The crew of the Alan Kurdi rescued people from an overcrowded wooden boat in the international waters of, of Libya's coast on Monday morning. The distress call had been lodged by alarm phone and was immediately forwarded to the responsible authorities, during which a Libyan flagged speedboat endangered the work of sea ice rescue crew. After shots were fired in the air, about half of the people on the wooden boat jumped into the water in panic without life jackets. The rescue boat crew deployed life-saving appliances after the situation calmed and the Libyans started to All the people in distress were supplied with life jackets and taken on board the Alan The organization CI was founded in 2015 and has saved the lives of several thousand people with the modified fishing boat CI and Seafosh. The Alan Kodi was the first ship in an aid organization in the Central Mediterranean under the German flag. More than 1,000 volunteer crew members participated in over missions to save over people. Reporting for iAfrica News, I am Aminata Job. jërëjëf a Diop ci loolu am na solo su ko defee ñu euh, ñëw rek euh, jeexale xibaar yi ak loolu moon ña euh, wax nañ ci waxati ji illegal migration ñu ñu ko ñu ñu gën koo xamee ci réew mi baaguwee kuy xalaat corona ak ak mbiram am na kuy xalaat leneen di doxalee leneen gis nga ñi am na benn ki ñi nga xamante ne mooy ay ay groupe la ñoom seen liggéey mooy jéem a dem ci géej bi bàyyi ñi nga xamante ne bàyyi xel ñu mel ni jàppale leen sowe leen daal mm-hmm. ñu bañ leneen lab ci ndox mi euh, ci ci ci loolu lañ gis activité yi waaye tamit ñu gis leneen ñeneen ñu xalaatoon leneen mooy libyen si ñëwoon nañ sax pour bëgg a yàq opération bi di fetal ak yooyu waaye yàlla def na ba ñu génnee euh, ñoom juróom benn fukki ay nit sowe seen seen sowe leen ci ci li nga xamante ne mooy ci opération bi. lu am solo liggéey bu am solo def neen ko waaye comme nga CREC ñu ngi la ko wax fi ne la ne corona bi nag xam naa ne jaam na Afrique bi yëngal na àddina bi yëpp. Mhm. waaye am na ñu nga xam ne ni ñoom. Mhm. loolu fokk ñu am pexe rek bu su lii leen dee xaar rek pour mun a am bunta ñoom daal di seet ñu def doxal si seen soxla soo ñi tam ñun foogoon ne ne sax lii kenn xalaatatut ko waaye rafetlu liggéey bu nga xam ne ñooñu def nañ ko parce que suñu xaaratoon lii tey yi bëri dinañ doon rot si mm-hmm. loolu waaye mm-hmm. dafa doon gën a metti daf doon ko danga daa nekk di xalaat corona fii mm-hmm. corona rek lu mu yóbbu si bakkan léegi macha allah doy na ñu bëgg a ñëwaat gisaat yeneen yokku si waaye alhamdulilah yàlla rafetal na ko ñooñu tam ñu jëra seen liggéey am na solo fuñ jëm fuñ jëm fu jëm fu nga xam ne. waaw fu jëm fi nga xamante ne gën a bëri waaw foofu moom. loolu loolu loolu Mariam loolu loolu jar naa ah, xalaat de. lu doy waar la lu doy waaw. dafa nekk nga xam ne comme african si ñoom dañ xam Afrique bu baax a baax a baax a baax. soo comme ñun rek ñun kenn gën a ñoo xam Afrique man mii sax dafa fekk dama ñemewut ndox rek waaye su ma ñemewoon ndox dinaa dugg si géej ah, parce que su ma amee corona su ma demee Europe dinañ ma faj dinaa wér man xam naa gis nga corona man naaj bi mu ma dóoragum fu mu nekk gis nga immune system si yaa ngi dëgër a dëgër a dëgër ba nga xam ne ah corona su ma laalee sax yàgga su ma <laughs> waaw dafa ne baak am na ñu nga xam ne dañ dee wax géej bi di taw xama suy bax bax naka lañ ko waxee sax suy bax sax ñoom dinañ dem waaye yow kenn du leen tere because situations moo leen fi man dama ñemewut ndox man ndox laa ñemewut man doomi naar laa dama ñemewut ndox seetaan loolu waaw waaye su ma ñemewoon moom mhm. laa su ma amoon fiti ndox rek dugga ci ah, déedéet kay laa déedéet kay loolu gis nga baag bi fu mu nekk right now comme coronavirus nu mu amee nii te ñu bàyyi ñu jaar ci jaww ji rek jaa ngi tëju bàyyi ñu demee géej géej mu ngi tëju de waykat bi nee na ndox amul banqaas ndox waaw géej moom amul banqaas waaye fu mu nekk jaww jaa tëj su jaww ji tëjee nag moom gars yi jaar si gis nga baak wee bi ñii mhm. kenn mënu leen koo tere am na ñu nga xam ne dañ may dop seen mayen ñu ne duga mbaa dee ñee ne loolu lañ defa duga rek mbaa dee waaw waaye tamit ñu ñu ñu fàttale tamit euh, nit ñi rek ne lii euh, dëgg-dëgg euh, li nga wax ni lu am la ñu mm. bari loolu lañ gëm lu lu ñu bari tamit loolu la ñoo dundee loolu la ñoo wax mm. lu munta xew lu munta métti ñoom bu ñu amee opportunité bi lim gën ndaw dañooy dem waaye tamit ñu ñu wax realistically dafa risky te Euh, dafa dafa bari dafa bari yu doy waar te te yii boo ci demee euh, balaa ngay yegg boo yeggee coono bu ci ne yàlla boo ko xam te tamit sa famille bi ngay bàyyi sa gannaaw mhm. coono bi euh, ak tamit surtout situation bu àdduna bi nekk fu mu nekk nii boo demee ñi la xamante ne ñoo la waroon a welcome mhm. téye la xëj na teg la ci place xëj la dimbale ngay jàng ak yu sax ñoom talatuñ loolu waaw talatuñ loolu de ñu ngi am leneen lu ñoo xalaat mm. mooy coronavirus bi ndax mu ngi bugg a jeexal mu ngi buggal jeexal seen nit ñi te nu ñoo contrôler situation boobu moo leen loolu la reflet la am na ñi nga xamante ne ba léegi ñu ngi fexe naka la ñoo dimbalee. ba eh, pare Amadou ñeneen sax duñ ko dee meeg danga dee dem bi aaga ak coono yoon beeg everything ndox ñeneen duñ ko dee mun a meeg dañ cee aaga rek yàlla fat seen bakkan because que maa ngi gis si vidéo yi sax maa ngi gis benn mag foofu paa la. waaw soo imagine rek paa bu war a bàyyi dëkkam paa bu nga xam ne comme mag foo demee ba nga war a toog si sa mag yaa nga enjoy sa city ngay dem ngay génn sa dëkkat di dugg si géej pour dem beneen réew nga xam ne situation bi moo métti Amadou te ba pare ñuy dem dafa mel ni ay naar leen waaw ay naar leen jër bu weex rek sax ñoo jógee ci ci ci ci Afrique Sénégal bi yeeg yooyu non non non lii Amadou lii tam jàngale la si néew bi ba léegi ba pare ñeneen ñi sax dañoo daw seen réew because xeex moo fa nekk mhm. nga daw nga dem nga dem benn réew dundin bi métti soo amuloo leneen li ngay def foog nga mhm. jéem a sacrifice sa sa life nga ne foog nga dem tugal mooy Europe euh, pour pour pour seet na ngay amee dundin bu bu tànn ci li nga nekk. te mm-hmm. ñeneen ñu bari tamit loolu moo leen fa loolu moo leen di yóbbee ci nguur yi euh, suñ nguur yi am nañ ci responsabilité bu bari bari parce que mm-hmm. euh, jàmmaloo bi xiiro ngiiro ak ngaayo bu am ci Afrique xeexoo bi fale tax ñu bari nga xam nga day métti nga mm-hmm. ànd ak sa famille dem. ñu rey say ñu mbokk yu bëri euh, yow amatuloo kenn amuloo ki la jàppale te nga nekk ndaw euh, xalaat boobu stress boobu nekk ci yow soo obviously da nga doo faale sax lii ndox la soo da ngay dem mm-hmm. lu lu am rek nga xam ne loolu la waaye tamit buñ fàtte ne yàlla am na léego-léegi tamit ñu dalal xel yi xam ne euh, nekkut Europe rek la ñëw mën a meeki affaire yi am na solo bu baax lu am solo nga wax nii te daanaka loolu rek mooy yëpp comme Euh, doo ko waxee rek. waaw ajaratu bi mu nga wax ne time bi daanaka lu si des. bëreetut xam naa dañ la ko jébbal rek foog naa ne dañ war a dem dikkan. Ah. waaw waaye nag man man da doo wax nga naan ajaratu moon ña. non ah. mooy commande in chief commande in dafa yomb tam meeg fii. fii moo si ñu ko meeg ñëpp dafa fekk suñ dañoo dem dellusiwaat. mbaate du ne yombuta meeg sax. Afrique yombuta meeg. maam ji bi de loolu laa wax mu ne. fii de ñaari taax boo ñetteel bi. mu ne mu ne fukki taax bu nekk fukki taax yu nekk foog naa loolu tax loolu moo tax nag bu nekk ci gaay fii ñi lay wax ne bul dem yëpp buy demee da gis lu ñoo dem waaye tamit xam nga loolu ba pare Europe sa respect la gis nga Europe soo demee soo delsi rek respect nga di am respect am na suñu nga am na ni nag dëgg la bari na de téeméer bu nekkal boo ko jëlee li si gën a liggéeyee seen taax si biti moo gën a bëri mhm. non daf te waaye nag am na ñu nga xam ne tam yàlla may na leen ko fii dem loolu moom definitely waaye am na ñu nga xam ne dañoo dem duñ ko mën a am foofu man gis naa ko fa dem mënu ko meeg mu ñëw fii yaa mu mel ni bagage fii la woon waaw kon mënu ma ak coono bu mu daj yëpp bu yëgoon du dem mu ne ko waaye itam nag dogal yàlla la tam